alaykum wa rahmatullah mbok yi ñu ngi di nuyu fi fi Daara qudus di len dik ak yeen di euh mbok yi ci jog biñ jog ci liggey bu tedd bu sedd xol bi ci bu ñu xëyee ci di mag fatli ko jëmm ju tedd muy Cheikh mustafa di màggalu ñett fani yi baraxlu ñu xëyee njàngum alxuraan ak qasayid ci dëkk bi nga xamé ne sëñ diop ma ndigal muy Daaru Xuddoos Kër Amadou Yàlla ñu fàttali tuuti ci histoire dëkk bi xam ngeen ne fii mooy Daaru Xuddoos Yàlla bi nga xam ne Serigne Makhtar moo ko sanc ci ndigalu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu nekk loo xam ne ci histoire 1953 ci sëriñ Serigne Cheikh bay fi ab toolu àllarba bi nga xamee ne 54 ñëw na ci déwén sa sëriñ Cheikh ñëw fii ci too ah, fii pàkk bi nekk tey fekk fi suñ maxtaar mbooloo mi ñëw di ko siyaare bari lool ba ñu dajee ba mbooloo mi dajale seen xaddi ba siyaare ko bu noppi sëriñ Cheikh jóg dox ay jéego da ko maxtaar kaay mu topp ci gannaaw mooy sunu maam maxtaar Diop bañ jox la mat fukki jéego mu ne ko maxtaar mu ne ko mbàkk mu ne ko defal ma fii kër kon loola ci gàttal moo wundu moo sanc tàmbali liggéeyu daal Xuddoos muy 54 1954 seigne maxtaar nak dajé di laxasaa yu fas amal ndigul seigne Cheikh gane fatna ci takku ak deugal ak télé bu mat sëkk dañu nettali ne euh, néeg mu fi njëkk tak moy da ko feteñ daf ko néegu ñax euh, nga xam lu fonko nako ko lool muy fo xam fekk fo dara waye ndigul seigne Cheikh ci la ko santé ay taalibeem fekk fi ke ci njëkk bokku na ci ku ñax maam Mor maam Njaga saar di bàyyi maam Mouride saar ak ku ci mel ne sàmba jóob ak ci mel ne Makhtar jóob ak magi taalibe yi fi nekkoon ku ci mel ne Moustapha Diayra ak euh, Njaga Farma mën nañ cee lim ba ku mel ne euh, Cheikh Loum ku mel ne Moustapha Diayla ku mel ne Balla Diop ak ñu mel noonu nga xam ne ay magi taalibe yi ñoo xam ne ñoo lax saawe ànd ak sëñ Makhtar fii ci Darou Khoudoss metti woon lool ci njëlbeen ga nekkoon lu jafe. waaye nag bëgg sëriñ bi ak bëgg fas yéene amal sëriñ bi ci lim digle rek tax mu laxasaayu ba loolu am tey daana fa toog fii di wax naan fekk mu fa woon dara waaye insha allah dana di wax tàll kon mel na ne kon li fi am moom gisoon na ko mu nekkoon yi dëkk boo xam ne si sanc ci njëlbeen nga amul woon ndox amul yoon amul dara waaye sax gum fi sax ak fas yéene saxal waxe sëriñ Cheikh tax na tey sëriñ baa ngi nii jaar ci biir dëkk bi am na ndox am na lépp euh, nga xam ne tey wax dëgg yàlla wut naag lool buñ ko sanc ci 54 waaye it masoon na maa wax ne ma sa turandoo damay sëñ Cheikh Gaynde Fatma fu mu masaan sonn ci tund bii fii lay noppaloo soosi ñaari néeg ñi fi njëkk a def nee na ma benn néeg bi su masaan dugg day toog ci lal bi ne alhamdulilahi rabil alamin daal di génn duggaat ci néeg bi ci des wékki jëlee bam so wékk ci portemantement porte euh, portefeuille bi daal di alhamdulilahi rabil alamin nee na kon dëkk bu mu fonkoon la boo xam ne nii dëkk yu bare bare bare yëmalu ko dëkk yi ndax ci ndigal lim ko sant woon ak Cheikh Makhtar kon dal mbokk yi kon fi moy euh, Daara khodos nek Daara seigne Makhtar waaye mu sancoon ko ci 54 ci ndigalu sëñ Max sëñ seigne sëñ Cheikh gane Fatma mu nek dëkk bo xamne histoire am du dara moy dëkkum ndigal la ndigal ko sant kon ñi fi nek ndigal la ñu fas diglu kon amuñu dan lu ñu fi may diglu ndigal seigne bi sa yu ñew jëf ko. njabot gi fi seigne Makhtar bayyi ci ko njëkk a moy seigne mustapha Diop. moom sax mooy ki nga xamee ne ba ko ak mag jotee sëriñ bi wutal ko kër Daaru Xudoos Tuuba moom la yebal fii ne ko demal nekkal ma fa te Mustafaa nekk fi ak i rakkam di wéyal ndigal loolu ba sunu borom def ci dogalam ci 2016 euh, mu wàcc liggéey suñu am di jóob di rakkam wóotu ko yal na yàlla yàggal taxawaayam ci dëgëral ko ba lim ministre lépp màggale ko kon moo ko fi wuutu waaye it nag ñoom ñëpp mu ci maanaam sëñ Amdi Diop mi nekk xalifa bi tey ak sëriñ Cheikh Diop mi topp ci moom ak sëñ sëriñ Mbacke Diop Marème ak euh, sëriñ Dame Diop sëriñ Basiirou Diop sëriñ Ahmadou Diop ak jigéen ñi soxna Seyna ba ñëpp amuñu benn objectif benn même xemmemteef lu may fas yéene wéyal ndigalu sëñ sëñ Maxtaar Diop ak sëñ Cheikh Yane Fane kon loolu mooy li ñu fi leen bàyyeel fas yéene téeñu ndonol yi wéyal ko diglu dara lu may ak euh, ndigal di ko jëfee. ca ñuy ñaan bañ a seeta ñu ñu nañ la ñu tere bis bi nga xamee noonu ñu fàttaliku muy màggalu sëriñ Mouhamadul Moustapha di première xalifa euh, sëriñ Touba radiyallahu taala anhu di màggal goo xam ne yàgg na lool moo jut suñu judd ñu nii ndax daa mel ne màggal gu ndigal lañ ci amoon ci dundal bis bi muy fàttali ko jàmbaar yi nga xamee ne fa mu jëlee yan ba di fi metti moom itam comme ni Abubakar Sadiq woote woon ñun sa salaam di lu jafe di la suñ saa sa sañ sëñ Tuubaa te kon lu jafe-jafe-jafe waaye nag loolu kon fàttali war nañ ca jàngat ne mbir yi ci njëlbéen mën naa metti waaye ala kulli haalin buñ toppee ndigal nangu ko day mujj neexi rek kon loola liñ ci war a jàngate mooy fàttali ko jàmbaar Cheikh Mouhamadul Moustapha ni mu nangoo woon téeñoo yen bi nangu ndigal ba lépp ne bu ñu ci loxaam mu téeku mu nekk benn dànk loolu lañ war a fàttaliku kon xam ne sëriñ Maxtaan yit dëgg la lim fi liggéey ñu far ko seen ko sàmm lolé kon moy ndonal yi nga xamé mom lañ fassiyene wëyel ci magal ko di ko fàttali ko jàmbaar ci mu Moustapha fam mu jaaroon ndax Cheikh Makhtar mi nga xamé mom la waxon waxoon see ne Serigne Cheikh Makhtar santé la dëkk bi daana wax ne Cheikh Mouhamadul Moustapha daana lañ wax ne Makhtar mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu ëllëgee ku ñu mënta ligéy lo mu ñu leen ko jaamaloo yàlla su ngeen ma ne ñu ngi leen toon mu leen ko defar kon jaamu yàlla ak sax te liggéey di déglu ndigal sa yu ñëwé ñu jëfé ko loolu rek moy liñ fassiyene yéene ko ci bés bi muy Cheikh moom Mouhamadou Moustapha ci loolu la nekkoon ñu ngi ñaan suñu borom taw taw feexal ñun ñun nekk tënku ci loolu bañ koo génn